man atayta ilal wujudi mubashira wa atayta bil qur'ani fiina haadiya wa talaata fil akwaani badran nayira wa maa xalaqal ilaahu wala bara basharan yara ka muhammadin baynal kon kooku nag nga xam ne mooy yaakaari jaam ñi mooy sangu àdduna mooy sangu alaxira lu yàlla bind ak ku yàlla bind yàlla la bind ci barkeem ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla soppaloo ci darajay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu nuyoo la woon rek <laughs> man damaa doon taataar sax maa ngi taataar nuyu mboolem ku ñu seetaan nuyoo bi neex na insha allahu taala sas <laughs> babaan kon su ko defee de neex na ko mën na ko waxtaan ñu rek di dem ba fajar nag bismillah <laughs> ah, bismillah aywa seydi xaal wax leen kaay leen xool alayhi wa sallam eh, yéen ñëpp wax leen loolu borom guddi gi mooy seydina walina wal axirina sallallahu alayhi wa sallam borom guddi gi mooy imaamil anbiyaayi imaamil baraaya mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaañi ne leen seyidee ak ba feeñ kaay leen xool xiwanta bi zikra man anwaaro labaat yeneen bi fil kaayinaati kasamsi fi samaayi talaat wasxali man xina bi jala xaaliqa lawlaw ma kaanat al anwaaru xat sataat budul woon ak Seydina Muhammad law law ma kaana mulku laayi multaziman dunya wal uxra bi kullu xad ixtaxid ey sunu waa ji xat kaana nuuran wala lawxun wala xalamun wala samaun bi ilaa wa xad rufiat wala jinaanun wala naarun jaxiiman wala sayide sang ba الخال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيد الكونين يا لما الهدى بدر تمي في الوجود على المدى مم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا كوكبا فاخ البدور بحسنه يا مرسلا بحق دوما زرمدا سيدي ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam wa aadamu bayna almaay wa tiini anjali ndeysaan laanta lasi uxtiita sallallahu alayhi wa sallam xidman boo watar wa aadamu bayna almaay wa tiini anjali li kulli min al axyaare fadlun wa rutbatun wa maa kam li abdillah ya abdullah dal ali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay jaabil ayaat rusulun taxaddamu fanaalu bikal ayaat min zi tafadduli sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna muhammad lisilang arsi qad aslamtu kulli bi jaayikum sayyide sang be فادلي حول الجرى جيل لا ثور ولا فند إني أحب رسول الله سيدنا خبال دخا سرع المال والولد وليس يبلغ المشعر محبتي حب الأوالي لؤلؤ الجداد أسفى إلى نفسي من ليلى ودرتها ولا تقارب جمد ولا داد وكيف لا وهو خير خلق خاتبة أتوا رب الورى ما لم ينل أحد من المعارف من نور تجلي ومن عرفي لي يصفى بي كمد سيدي سنبي aj kaay leen xool yow ndeysaan kan moo fi gën a bëgg Seydina Muhammad kenn gënu maa bëgg Seydina Muhammad huwa dawatul usma yudallu bi dillihi yeah, yeah. yonent bi yamun bilaa manil wayan fil maasiya baayu xalifa bi Serigne Babacar Mansour nee na turandoom Seyduna Muhammad alayhi wa sallam yonent bi huwa al munta majidan wa faqran wa sudadan wal murtaja يوم نصيب النواصية moo leen ëpp doole moom Seydina Muhammad moo leen gën a nekk góor mooy géer nga tooñ mu baal la nga ñaan mu may la sëy dee muhammad rasuulillah cheikhul xadim baay sëriñ saaliw way na seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama oh. leeral ci daraje Siduna Muhammad la leere ndeysaan min nuuri kullu nuurin saatiun bi sana nuuru nujuumi wa nuuru shamsi wal qamari muhammadun sayyidi saadaati jumlatihim صلى عليه بتسليم كما بدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الامين من المولى نبوته خدما وادم في سلسال قرن بدا محمد نجل عبد الله من نسبوا لشيبة الحمد نجل عاصم الوزري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سرين بامبنين محن محبتي المختار سيدنا حبي معاني والأهلين والولد سيدنا محمد دمي الفداء لو عبد خديما لو مسكان لي سندا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي سنگ بيفي كايلن خو قلت شيخ محمد فادل banu maami taalib alxayaar doomu jël muxtaar gàddaar am ngeen maami yaaram baayu cheikh alxalifa cheikh sidi bu baayu cheikh taalibu yaa taali aboubacar baayu cheikh almaxfu baayu cheikh alatraame ngu mbëggeewul kooku mooy baayu cheikh alwali cheikh sadou labi baayu cheikh sidadil kabir ee eh, carloo na Cheikh Albounanna doomi Cheikh Mohamed Fadal Cheikh Sadou Labi baayu Cheikh Alat Xaana Cheikh na Cheikh Sadou Labi doomi Cheikh Mohamed Fadal jeneena bi nuuri adaa ma fi kawni wa uxtiyaal ubaada siral lawni jaada alayhi bil xitaabi wa shuud tafaddulan ladal xiyaami wa sujuud jaaloo fal nan yonen jaaloo yëkkati nan yonen jaaloo jaaloo jaaloo jaaloo imaami rusul kiraami في المسجد الأقصى وفي كل المقام سيدي kaay leen xool yonan sallallahu alayhi wa sallam ngir gaañi Anu day gee jàppe na ni suñu bari jaasi ah. ay waay di way yonneen sallallahu alayhi wa sallam yi saaba yanaan xare ànd ak borom raw du bees di xar xee ngeen sang meemeen kaay leen xool e waay guddi la woo al braax bay sab xatima bari doole lool te ma salar lu dul kuy may boroomam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo bari sañ-sañ te ma samay boroomam sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki moo bari yërmande mooy nabiyu rahmati sallallahu alayhi wa sallam sunu waa jooje guddi la woon xaaja guddi lan ko yee muy fanaan jaabal buraax ba tata siba ku di la woone Mamadou Lamine Mamadou Lamine ku di lan ko yee Sëriñ Bamba nee na salli ala saarin sama fawqal buraax li sama yonen waaw waaw محمد وكرما باسمه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سور الأمين مع الأمين فوق الأمين الأسفياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محضر على أبدا جلالا أبدا جمالا للأتقياء قد خادموا إزواجه واخترموا سمني خايم وساد فيه وبانانهم وسنانه بدت خاي دسرايا في ليل البيم فما أدري أبر خبدا بخصن مبتسمي أيوا ما ورجرا وما در نسيم وما إفساخ خصن لدى ندخل له بفمي baarakallah boobu yoneen xim bi jamaali lati min baadi jumlati jamaalukul alwara ila falaatee nii waay guddi la woon xaaja guddi lan koy muy fanaan di jaabal gol kulaax ba tax sa si baarakallah Seybra Oustaz. la baykat ah yaakaar naa gaa yi nag ubbi nañu. waaw waaye yaakaar naa yëngal nañu la. Mhm. ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. sallallahu alayhi wa sallam kon Oustaz Ibrahim tey daal nit ñi ñu ngi.